suñ borom njëkk bind ba ka suñ borom mujjee gémmañ bu yàlla xar rek baatu laa ilaaha illallaah moo tax Espírito ginaaw sàngam xet lu ñu def sàngam suñu borom bokku ci wala na wo jinsu amul xet de doomu aadama mooy am xeetu warf ak xeetu séeréer xeetu tubaab wala anglais wala français wala américain xet malaika amna amna am na alun minal malaayikati am na malaayika yoo xam ñi ci kaw suuf ñoo ci asmaan yi juroom ñaar ñi digal asmaan suñu ak xet malaika fa nek suñu borom bokku ci benn xeet ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون wala lahu jinsun amul xeet bu mu bokk bu koy boole wala makkaan amul bërëb bu koy fekk suñu borom kenn ni ma nga toog ca kaw aras wala si kursi yi ñu laaj imam Malik borom xam-xam yëpp dañuy wax ne suma stawa ala arsi mu ca kaw aras suñu borom aras ci kaw aras aras ak ëpp kenn mënta xëy waaye kursi yi aras ginnaaw nag seen ko ci bërëb mënta ñàkk muy wasi'a kursiyyu samaawaati wal ardi suñu borom bu ëllëgee ci yawmal qiyaama lan koy def gis te gis si sa kursi yi mu toog waaye fi ne dara tënku ko ndax loo toog loola la ëpp bu toogoon ci kursi yi kon kursi yi ko ëpp bu ci ars si asam mii toog bi sunu kilifa xaj na ci sees bi moo tax mu toog ci sunu borom xëy ci benn sees. wasiya kursiyu samawati wal ard moo tax ñu ne wala mukano comme suñu xaadim boo ne la ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne sëñ Tuubaa mi yàlla dem fa kullu ma yaxtur bi baani abat lépp lu sa xel mën a xalaat xel ma gën a sell di ko xalaat ñu segg ko ba ni bii amul morom nii la yàlla mel nee na fa bi xilaafi saaka rabbuna ahad loolu wute nag yàlla loolu du yàlla de lu maa teg bët ni mi ngi lu xel mën a tënk lu xam-xam mën a bind ci këyit wuti naam suñ borom wala si min sayin wala fihi wala fii taxtihi wala alayhi muskara suñ borom nekkul ci kaw dara waaye dara nekkul ci ronam yàlla génnewul ci yàlla taxaw génnewul ci dara doom yàlla waaye dara génnewul ci biiram ndax bu dara génnewul ci biiram day manqué yàlla foofu si min si in wala fii tahtihi nekku ci kaw dara dara nekku ci ron wala andihi dara nekku ci kaw moom yàlla mus dara lu mën a doon nag ci bambastar lépp ci bokk yi koo kenn nag di kenn rek kenn rek la kenn rek la kenn rek la adduna benn la ci mbir li benn la ci li mu bind àjjana benn la ci li mu mu wax ne juróom-ñetti àjjana am na waaye benn àjjana ba ne àjjana àjjana safara benn ci lim bind malaayka benn ci lim bind doomu aadama benn ci lim bind ba kenn kenn xamul nu ñëpp buñ xëyee kenn ku ne yaa ngi wut ngërëm sa xëy nu la yàlla gërëm rek ngay def suuf si ñu taxaw li mu dox sàkk ngërëmal rek a tax asamaan si ñu tiim li ko tee laa bi suñu kaw sàkk ngërëmal yàlla ba ko suñu borom ba tey mos ta yëgut kooku moo sàkk Seydina Muhammad moo tax ñu ne laa ilaha illallah Muhammad rasulullah bi ko sàkkee moom def ko muy kenn ci anbiya yëpp boo demee ci téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent suñu wax ne ne ko ba tàyyi ka ca gën kenn la muy Muhammad rasulullah ñu baate naa carte gi ñu seet ñetti téeméer ak fukk ak ñett ka ca gën mooy Muhammad rasulullah ñu ne nan seetaat mbir mi alxuraan segg segg ba am ñaar fukki juróom محمد آدم نوح هود إدريس لوط صالح داوود ويوسف ويونس أيوب هارون يحيى أخزى يعقوب إلياس ولسان سور ابن إسحاق ñoom ñëpp bi ñaar fukki juróom kenn ci gën Muhammad Rasul ñu ne naan seetaat mbir mi suñu borom ne wa min ko wa min noohin wa Ibrahima wa Moussa wa Isa ibn Maryam juróom ñu am wuloo xas mi de mooy ñu am ab doom yàlla rek nekk na man ci mbindeef yàlla yi juróom lañu boo seggee juróom yooyu nga seggee Murtada Muhammad Rasulullah ñu segg nag saa yu segg ñu féete kaw moo tax Sëñ Tuubaa nag huwa akmalul wara moo gën a mat ci yonente yi moo gën a mat ci malayka moo gën a mat ci mbindeef yëpp xan-xan wa xul-xan saara wal mis na ku mel ni moom xattu mukk lañu raa kooku la moo ni woon yàlla nee na xul in kuntum tuhibbuuna llaaha fattabi'uuni su ngeen bëggee yàlla bëgg leen topp leen ko ñi ko topp bari nañu ñi ko bëgg bari nañu ci ñi ko topp kooka ñi bëgg rasulullaay ku ci raw ñi tagg rasulullaay ku ci raw ñi xam rasulullaay ku ci raw sëriñ Touba amu ci morom jërëjëf sëriñ Touba laaj ma ko moo xam ne firnde ji leer tagg rasulullaay yi sama xalaat sama bu yi ma tabaxoon Touba ak Njaaréem ak Mbàkke Salaam يقول لك يب مكنا لتخ أنا لنا مخير سنتنا دار السلام بام تيمير طالب ماي مارشي أنا لب لب تاسنا نيما توك نيب أنا تخليفو نني اك مان لومو كو أنا تغرس لنا وتخ لو اندي صلى أنا عليه وسلم مس كان مس كو أنا مون خرجت في غمري محبة النبي أنا الله بران سانغ رك دما نك أنا ديج كين مس كو اكل مون mu topp rasulilaay fii ci àdduna topp ko ci àllaxira suñ rasulilaay di ko may la ko suñ borom jox moom rasulilaay may ko man gi rasulilaay man ci bindéef yi mu may ko sëñ Tuubaa mu man ci bindéef yi raw gi rasulilaay raw ci bindéef yi mu may ko sëñ Tuubaa xam ne siram moom mu mag ma di ko tàbb rek ñettamal ko ndax suñ borom kat dama ko ne daan na mu ne ma daan na ni yàlla wa alallahi bilaa taxarul wa umri ma ne sus àgg ci yàlla suñu borom ne kooku ci maana kooku ci maana man ko maay Abdullahi wa Xaadimu Rasul looy wut bëgg sa jëmm xañte sa jëmm jaamu sa jëmm yaakaar sa jëmm wéetal sa jëmm ji yooyu yow yàlla ci wéetil boo xam ne kenn mësu koo def sellaay boobu ak dagg bi moo ma indi fii man ko waaye damaa am bunt fuy sa bunt muy muhammadu rasulullah fan lay jaar sun borom tiktal ko yoon bamuy jaar ba raw ba ag ci muhammadu rasulullah dalal ni yalla yalla moo ma tiktal ala muhammad yalla ma tiktal fuma jaar muhammad bama ag ci mom diko tag nak muhammad ni man ni ñi ma fi jaar di ma tagg bari nañu musuma am taggin mu melni ni yow mi di ma tagg ahmad wa ni muhammad muhammad ni man ni di ma kaay sun borom ngi wa nii waxaat ni sama ni ba ma ci sun borom malaka ni dunya mayna ma aduna ji wa oxra may na ma laa bis bi xaar yu ci la ba mu daj ba mu tàmm ak léegi ay milliards ay milliards milliards weer la ay junni junni ay millions yi millions yi at la ay ba tey jii bis bu mel ne magal amuñ ca arafa ga ñuy wër ca makkatal mukarrama amuñ ca mustalifa amuñ ca mina amuñ ca tawaaful ifaada bis bu mel ni màggalu si ci fukki fan ak juróom-ñett malaayka yi dañuy ñëw anbiyaaw dañuy ñëw gaa yi baax yi nekkoon bar sax ñëpp dañuy ñëw ñi taxawoon te sëñ Tuubaa gërëm na dañuy fekk si màggal gi bis boobu sëñ Tuubaa rek moo ko am sëñ Musaa Ka na ci géew yi màggal yi mel na ci bis ñuy wër ci géej yu mag di def ay suq si Moussa Ka boo xam ne te mus di xelal Sëñ Tuubaa nee na di ngeen daje gaa yi ne woon bar sax ñuy wër ci géej yu mag di mel ne ay suq kon si yaay di ko ñëw na ci màggal gi soxna Mbàkke ñëw na ci màggal gi maa ngi ñëw na ci màggal gi gaa yu baax yi gërëm ñëw na ci màggal gi du sama wax. mboolem malaaka yëpp suñu borom gën a nekk mel fekk ni màggalu Ahmadu moo tax ma ni fan yee passé wax nañ ko ci jenn jëm ju bëggoon Sëñ Tuubaa génn ak man ne war naa ci yàlla ma màggal ñin xam dañu fekkoon màggalu Sëñ Asan Kan bii di bisub Sëñ Tuubaa ña ko daa fekk tey jii ñun ñu di leen yërëm di leen ba mu si tuddalee kenn ma ne tey gun ma sa gii moo leen daxal ci màggal yi ndax suñu borom mu ngi leen di wan sa benn yi ca màggal na àjjana amul bis àjjana àjjana amul rajo yoo xam ne day xur-xur yi àjjana amul yaram yu métti amul tifli amul xiif amul lekk bu suur di di nelaw amul jëminti amul dem wanak amul tuur ndox àjjana amul loolu àjjana amul tifli amul xaftaliku amul yaram yu métti amul nelaw bëccëg amul nelaw guddi àjjana ñamu àjjana mu mën a doon tey àjjana di bu koy dàq waaye nee na àjjana day xëy waa àjjana ñëpp yéemu ci nii àjjana mel tey ci taar bi ak neexaay bi ak melo bi ba àjjana ni waa suñu borom mbir yi gën a neex gën a xéwale lan moo ko waral suñu borom ne ci àdduna ba ngeen may nekk dama jaamu dafa am sama jaam boo xam moom laay tuddee Abdullahi wa Xaadimu Rasul bu ngeen déggee Sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba bàyyi Cheikh Mouhamadou Anta Sali moo ko tuddee Muudu Bamba Sall Ahmadou Bamba Sall loolu la ko tuddee woon ñun ñoo ko tuddee borom Touba ndax mooy borom Touba waaye suñu borom nag moo ko tuddee Abdul Xadim moo tax mu ne yow yàlla sa mayta nii tudde nga ma xam an kilo dok bi ab digal xat yi àddina xëy yéem bi def jafe ya nekk yëpp gën neex gën a biree taal gën mel nu kenn xamul ci mu neexoon ak laay loo xam xel ko ko ci xol ko xam-xam ko ñu laaj borom mu sama jàmm bi ñuy Abdul Khadim. ngërëm laa ko gën a woon te safar ko indi

nekk ahlu badr ñuy samay xarit di samay soppe ñoom ñëpp kullum wa kullum saa'irun fii watani ñoom ñëpp day ñëw sama dëkk bii ma fi siyaasi si Tuubaa ji tey am na gan. ahlu badr ñëw nañu wàcc si Tuubaa. ahlu badr màggal si nañu. ñay malaaka Jibril si nañu. ñay ay yonente Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen jiite màggal si nañu. kullum wa kullum saa'irun fii watani képp ci ñoom ku mën a doon kuréelu badar yëpp ak kuréelu yëpp. seen xol sedd nañu ci liggéey gi ma liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ma ko mu xara biina yi ak bi yaaw yi nu xabaawu si xeba yëpp yëpp ko xam ne am na jàmm bu yàlla gërëm gërëm ko ku ma gërëm nga am gërëm ñoom ñëpp dañuy ñëw ci bis bi bëgg Sëñ Tuubaa ni leen jërëjëf bëgg Sëñ Tuubaa ni leen jërëjëf kon jërëjëf a borom ko waxul si Ahmad Tijaan Sërif wax na ko waaw dëgg la gërëm na ko ma ndax lan liggéey bi ma liggéeyal maam mu def mu bëgg ko ko liggéey taxaw fana mu tiw ko ma liggéeyal ko mënu si Ahmadou Bamba jërëjëf si Abdou Khadir ji daan liggéey gërëm na ma waaye ñu fa de Jibrilu Mikaayil Israafil Asraayil gërëm ma kenn ku ne nee ma xam ba ba ñu am ñoom ndax kenn ku ne daa fu ñu yem wa maa minaa illaa lahu maqaamun ma'luum si naa Jibril nee na ñun malaaka yi amul kenn ci ñun ku dul fenn fu ne dafa fu la fa yàlla yombalee ku ne fu la yàlla yombalee mënu faa weesu waaye suñu tubaab jigéen lépp jigéen mu xaar am na ko ko wax léegi yaa malikal mulk lii wasa buuna jawal fii mulki ak malakut mulk ak malakut sëñ bi amu ci intermédiaire walaysa lii fii lawhihi min ajri nee na yu addimu la xayina si laysa yamuut alxalqu abadan abadan an nii last amut suñu borom ci boppam moo xamal mi def yëpp ni leen Ahmadou Bamba tuddee yu xallimul xayina si laysa yamuut يهلم خملنا باي جانغل سي يالا يومي جانغل فمان مداري يالا كين كو مداري با نيت نلا يوغال بو ن يالا دا نا خم دي كون لو خم دا نا خم موي خم بو ابري دا نا خم يالا خم نغا يخ يعلم ما تسرون وما تعلمون بو ن يالا دا نا خم دي بوكو وخي دا غاي جوم يالا كين كو مداري ها كين كو ديفال فيون لو امري ناك امولو ميدي كين كو ديفال فيون لو مادي يالا دو باسي دو نيو دو نيك فيون لو مادي فيون المستقبل فيون لو مداري يالا بوكو تي نيو ya'lamu maa tusirruuna wa maa tu'linuun moo tax sëñ bi ne yu'allimul ayyuuna si si yemoo yàlla mii aji xam ji aji dund ñi leen faatu xamal nañ ñu def yi ni leen Ahmad Bamba mii lastu amut man duma dee. waaye sëñ bi demal Tuubaa ci sëñ Muntaxa ku fa dem ku dugg jumaa ji wër ko da nga xam ne borom dëkk baa ngi fi hmm. ku dugg xalwa ma mate ko da nga xam ne borom dëkk baa ngi fi ku ne jërëjëf sëñ Tuubaa te muy dëgg ci fi gars ñu ko xam ñu ne ko da xanaa du mbindeef mu ne axakay ah nasaani minal wara baaxil bi ma ko liggéey ba ñëw mbindeef yëpp dañu toog mun ma seppat ci mbindeef yi teg ma ne seppi na ma ci mbindeef yi lim bind génn na ma si ba set teg ma ne ni ee eh, yéen mbindeef allamahum bi annani abdul xadim xamal leen ni ki abdul xadim la bokk nag Yang de yéen ci yang woor képp kii yemut ak yéen Muhammad salaa sallam dani suñ borom daganal na ci man ak sama ñun pàkki suuf yëpp defal na ma ko muy jàpp fu mu jël Pakai ak pàkki ndox yi ba tax pàkki ndox yi tàmbale ba tey nag xamal ko ko borom suuf ak pàkk ndox yi gaa yaa ngi jëm a julli ci bato yi ak gaal yi ñi ngi jëm a julli ci avion yi de ñi ngi jëm a julli ci looce yi ak gaal yu ndaw yi ak bato yu mag yi ak yëpp ñi ci jëm a julli alam tara anna fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi fil bahri bi ni'matillahi Sëñ Tuubaa nee na man mi la alam tara anna fulka firiwul gaal de alam tara anna Seyxuna al Xadim fil barri wal bahri bi ni'matillahi xéwal bu yàlla indi la yàllaa ñu moom bu bu kii dem ba bay du Seex Sidi waxoon bi Sëñ Sidi waxoon keroog inna Seex Ahmadu Bamba ñaxmatun min ñaxmatillahi xéewal la bu yàlla indi ci mbir fi yàlla asayxun ni'matun anama allahu xéewal la bu yàlla indi ci muy xéewal Sëñ Tuubaa moom suñu borom moo ko xéewal adduna su Sëñ Tuubaa ñëwul dara ko jàpp seytaane dafay mag mu amul morom am na benn war day naan féewu jëm ci pays yàlla ba fekk waa teg ay tëgg di tëgg ay ceen di tëgg waaye ñëw ni ko cuxuj di ko jëm a cuxutaan iblis gës mu kunt ci la muy tëgg te faajoo mun ko yow liggéey ngay tëgg ceen yi ngay tëgg ak jéng yi la ko waral mun ko gaa yi fi bi jëm ci yàlla ñoom laa bëgg a jéng ba a jëm ci yàlla xam nga kooku borom martaba mun ko xanaa man ana sama jéng xanaa booli wu ci mun ko yow jaraloo ma sax tëgg su ma la xoolee sama bëte nga mooy yàlla kon kenn tuwul si daal seytaane jaxase la sahabatu rasul ba ñuy xeex ci seen biir seytaane jaxase na Seydina Aliou ak Seydina Aïcha waqaatul jabal xare bu métti la woon seytaane jaxase na Seydina Omar Abu Bakar Siddiq ak xeetu rasul ba ñuy xeex ci asaka mag la seytaane jaxase na góor yàlla yëpp man sax bu ñu bëri bëri ñoo xam bi terrain bi tàmbali ba mu ne terrain bi amatuma fi morom junni ak ak ñet timen mu yaq rek ko neex yaq gu yalla bu sepp ndul mu fàtt Seex Bamba daal di ñaan ci barke jii bi ni su situation bi la critique man maay ci yow kulle jii may khadim rasul fi su dooni maay ramu xarnu bi segal bi ma leen dara mu andi niiraam si mu sagali eh. bu dul woon tukki bi walaf wolof salam te kuñ billahi la wax billahi moy billahi la si laa ilaha illa huwa bu dul woon bi dem niiraam ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu ñii dafi dabu ñii di ànd ak naaj noonu la koy liggéey di ko lim ba lislaam ni lislaam ci boppam di jooy lislaam di jooy yëkkët di jooy jooy métti ba génn gàddaay ci sowu rek fépp mën naa la bay suñu ni ko dalal ba mu ne maay na ma dalal lislaam ana say taari ana ñi nga am ana say gars yi sëf leen ma joor leen ma danaa ko jàpp lislaam isi ta ta bi ibadat ma islam ba na tuye jeex ñëpp mu di ko dégg si bi loolu na amul ci adduna kun ko mus a teg amul ci àdduna gars dama bëgg ngeen tontu ma amul ci àdduna kun mus a teg ni métti daa tuuti ba ne métti daa tuuti waaye li toog Sëñ Tuubaa daa raw dee natt bu ne teg na moo tax mu ni mittu mi raaran dem naa dem yoon di liggéey nag tey jii dama wax ne 18 safar tubaab yi technologique fu mu toll ak satellite yi bari ki dem yéen a ngi dégg di Sénégal laa seen premier satellite bu fekkoon gis nañ suñ tubaab muy naan ba tëdd nelaw jaxal danaa Cheikh Ahmadou Bamba 18 safar ci 15 fekk na ko muy nelaw mustaam wala teg nañ ko lu tax mu tee julli mustaam ba juróom-ñetti at yi mat mu dellu si waat si borom ko gànnaar mu defee ni noflaay def déet gànnaar booy la ko fa yóbbu ak la ko yóbbuwoon ci géej bokk gànnaar aw xeet lan moo xam ne dañoo bari njabootu si Abdou Khadre Jeylani bari ay sëriñ bari gaa yoo xam ne àggoon nañ ci yàlla te seen maqaama ya génnoon àdduna maqaama ya ci jaww ji jigéen ña fa nekk juratuñ doom bi mën a ànd àttan àttan maqaama ya buur yàlla yi fi nekk amatuñ ku mën a yoo xam te ko ba àttan maqaama ya ya nekk gànnaar ngir sëcc yooyu suñ tubaab yi war a liggéey ngir àggal buur yàlla nasrun min allahi wa fatun xaribun wa basrul muminina borom nasrullahi diine